benn laaj bi ma amoon rek muy wàllu inondation bi nga xamante ni rek yaakaar naa réew mi euh, ñoo ngi koy dund te nga waxoon ci ay wax yoo xamante ni tabarkal la ci ñi nga xamante ni tey ñu ngi dëkk ci ay xuur mu nekk loolu loo xam ne ay la te xam nañ fii euh, mbiru yoon la euh, am na ñoo xam nag côté bi may ñëwee rek mooy ñi nga xamante ne amaana xëy na état joxoon na leen foofu te joxin boobu mu leen joxoon tamit ñoom defoon nañ seen droit lañ fa waroon def def nañ ko waaye mu mel ni tam ñoo ngi ci jafe-jafe loolu tey yan kàddu nga xamante ne yaa ngi koy yëkkati ci ñi nga xamante ne naam du seen coobare waaye waaye dañ leen ko daggaloon te yoon moo leen ko daggaloon. waaw xam nga sëñ Mountakha sénégalais daf ci am nit ñu naqadi deret sëriñ si tawuñu état bi tawul binduñ seen bopp yàllaa leen bind yàlla taw man sama kër Tiwaawan bu daan taw day def géej ëtt bi maa jënd ay camion ñu sotti ko fa sama kër bu tawee toq du fa taa mais du bàyyi mu taa may woo ay politiciens fii ay ñuy ñëw bëgg di ko bëgg maa weeje ak wut ay seeni affaire ci man du ko def li may ñaan ñi am kër yoo xam ne yàlla dafa dogal muy palaasu ndox su nawet bi weesoo nañ ci sàkk pexe sëkkaat ko ba mu jóg moo gën parce que yuuxu joo xam ne ka ngay yuuxu du la faale nga yóbbu ko ci télé bi du la faale ñu ne la am na moto yu koy manq ya koy manq moto boobu boo ci defee ñaari paan mu fees wala fa mu ko yóbbu du ko fa mën a yóbbu mais nga defaraat sa kër man je préfère ça man mi wax ak yéen def naa ko sama kër ñëwal sëñ Muntaxa buy taw toq du taa ci kër te xur la woon foofu da daan fees ak ndox del ko comme géej kon inondation yi nañ def li émission Bougane bi nañ ko waxtaane man sama kër la taanaak ndox mënatuma faa dëkk waaye léegi lu ci yoonu keneen bu dëgg di dëgg la am waxuma ñu naqari der ne ci si di naan way Iran Ndaw li mu wax waru wax ndax sunu kër dugg na fii dugg na waaye toppal fële yooyu yëfu caaxaan la rek Macky sàll du taw moomul taw bi mbindii fi kenn moomu ci taw bi xam nga sëriñ Muntaqa sëriñ Muntaqa dafa woote journée xasaayid ku sa carte to ah, jeex rek nga muñ nag mm-hmm. waaye ñu seen carte jeexul sëriñ Muntaxa dafa woote journée xasaay mu mel ni màggalu Tuuba bañ ko jàngee ba mu yegg du la onze la woon mm-hmm. am déet bañ ko jàngee la onze ba mu yegg ñaari baat dégg naa ko ci waxam mu ne ñu yéene ci mbas mi ak nawet bi ndax xaw naa cate mm. am waxul lool mm. lii la wax de le onze la ko wax mm. le douze le treize le quatorze taw bi sóob xam nga quatorze lu muy tollool benn turu yàlla bu ñuy wax wahaabu wahaabu leen ñu yàqal waaye benn turu yàlla bu ñuy wax wahaabu xam nga lu muy firi mooy mayekat bi mooy yàlla ci la may sëñ Muntaxa nangul ko ñaanam ci mbaaxam ak ci barke maamam Xaadimu Rasuul muy taw ba léegi la quatorze ba léegi mu ngi taw ah te ma wax la benn affaire xam nga surne xasaayit bi boo la neexul rek yaa xam sa affaire la moom yow mii di seetaan am na ñu ne ci biir ñi ñii commentaire eh. xam nga sunne xasaayit bi lu ci garaaw Sénégal yi yëpp ñëw na ba bitim réew lakkatoosu taw bi dafa ubale Sénégal yëpp dëkk bu tawul amul dëkk bu tawul amul quatorze mooy tolloog wahaabu waaw du lu doon du six alkubeer di cinq muy ñaata onze alif ñaata la benn muy ñaata muy douze baa ñaar la muy ñaata 14 sëñ Muntaxa jaar fii mhm. dalaa naqari yaa xam man dëgg rek lay wax dëgg man ku ma dérange day dee yaa may njëkk dee rek faaliwu la mhm. dama la onze la ko ñaan mhm. ñépp ko dégg su tawu lool ñu ne xasaay di ñu nanguwul su tawee nangu leen na nangu na ba léegi mu ngi taw kër yaa ngi indonde te yenn yéen soxla woon taw bi àll bi nekk déeg yal na ko yàlla yàgg saga sëñ Muntaxa ku baax la xolam mën na koo may lu ne yéeniwul kenn safaan yàlla ji yonent bi maamam xaadimu rasul dama ne onze lañ ko def mu wax ca douze treize quatorze di wahaabu yàlla miy maye may ko taw mas naa am ci madinatu wara yenent bi ñu toog biñ julli juma am ko jóg ne ko dama am lu ma buggoon a wax mu ne ko bismillah mu ne ko ah, beekoor bi doo ci wax gannaaw yow la yàlla yónni ñaanal ñu taw fi mu ne jayi loxo yi di tàllal benn waay wàcce loxo bi ni ko may ma ma daw damaa weeroon sama tàndarma ma gaaw weeri ko balaa tooy benn waay ni ko yay nafiq xanaa balaa taw xiin da nga fay gisu xiin yéen nii rek ngeen di def xam nga bëri na ko la jegeti sa noon la mm-hmm. ah koy xam di mm-hmm. bëri na ko la jegeti sa noon la mm-hmm. soo ñàkkee ki nga am bu wéetee jëw la mu dem weeri tàndarmaam yóbbu ca kër ga ñëw ne ko nag Moustapha ñaana bi def ñaari loxo yi nii allahuma asqi bilaadaka warham ibadaka yal na may ndox sam réew te nga yërëm leen taw bi soob ti xiinul yee def loolu ca madinatul munawara laa ko muy taw ajjuma samedi dimanche altine talaata alarba alxames ba ajjuma ka waxoon wax ja ne ko Moustapha taw bi ëpp na nag jur yaa ngi dee néeg yi daanu kër yi di taa ñaanal yàlla mu arrêté ko mu tàllal loxo yi ne ko allahuma hawaalayna wala alayna yàlla taw bi doy na arrêté ko mu ne karet sebeti njool màkka def na ñun koog la nu am muy sunu cër waaye ngóor si naan xamuñu ndeyam xamuñu baayam kuy ndeyam kuy baayam doxal ñu dem ndeyam gënul sama ndey bàyyam gënul sama bàyyi bañ <laughs> doxal ñu dem koo koy rasulilaay ay sëñ sëñ Muntaxa itam ko doon mag ñi doon lëf gis nga ko doon caaye doon naa le teeñ yi loo ca ku doon caaye doon teeñ yi ca caaye ja ñu lay matt ngay wagasu waaye moom it mu ñaan la onze douze treize quatorze tolloog wahaabu mayekat bi mu yàlla taw bi soo ba léegi sax di teew ñun bi ñuy jógee Tiwaawan mu ngi taw ñi indoon de bëggatuñ ci taw bi dara ah xanaa maam yi it nga xool nooy def rek <laughs> ah loolu fi ne di sama maama nag sama xarita sama sëriña suma baay maa ko ko def xam nga ki nga jàpp nga mën a bàyyi mais ki la jàpp mënoo ko bàyyi ko jàpp mënumaa ba waaw sama maama sama sëriña sama xarita suma baaya li muy def neex na ma lool fi mu féete yàlla taxawaayam neex na ma torop amu leen taw lu loolu la ñu ñaanoon àll baa ngi fees dell ak ñax nag yaa ngi lekk lu leen neex soo maa ngi jallaañoo meew mi di jallaañoo lépp di jallaañoo jërëjëf Mbàkke Balaay sa buri ñaan gi nangu na jeex léegi oustaz ñu ñëw ci ba ba bayit bi muy ni aw yoddur fa daaka fii daaree ni zu kaddin wa dur nga xam ne bayit boo xam ne suñ tubaab moo ko bind ci xasida la suñ Muntaxa digle ni ko jàng waaw ah, sëñ Muntaxa moo joxe ndigal waaw xam nga euh, euh, congaan sëñ Muntaxa ku yeewu la sëñ Muntaxa ku yeewu la torop ku xam àdduna la benn bii mu joxe xaadim def ne man zan na ku yaakaar ne <clears throat> yuuxu nii dana jëriñ dara mm-hmm. mbindee fi mm-hmm. aw yadru wala mu mën a lor mbindee fi mm-hmm. xayrallaahi ku dul yàlla fa zaaka ka yaakaar loola ne am na keneen ko mën a lore ku dul yàlla am na keneen ku mën a jëriñe ku dul yàlla sëriñ Tuubaa nee na zoo këddin da ngay juutal périmé de këddin du tàqale koo coono fii daare ni adduna ak wa durrin du teqale koo lor fii daare ni adduna ak yàlla ko fi ba doo teqale koo coono doo teqale koo lor Xaadimu Rasuul nee na yàlla rek ko yor kon ku yaakaar ne keneen dana jëriñ ko dul yàlla wala keneen mën naa lore ko dul yàlla xanaa kon corona dugg na <laughs> ah ku war a lore ku dul yàlla corona dugg na. Mm-hmm. corona du lor kenn. Mm-hmm. xalifa nee na kaa yaa ngi wàññeeku. Mm-hmm. ah lu ci ne taw baa ngi wàcc kaa yi wàññeeku. te ñaar yooyu la tuddoon. bu mu leen naqari ngeen yéegalaat kaay bu ngeen ko yéegee lii ba pare ñu soof ngeen bu ngeen ko yéegee lii yéegul wàcc na taw bi wàcc na kaay yi wàcc na jërëjëf sëñ Muntaxa yow nag bu la naqari yërëm naa la te naqariwul kenn neex na ñëpp ah la neex moo tax way waa ngi nii man zanna gayrallaahi yuxni aw yadurru fa zaaka fii daarayni zoo këddin wa durrin way wee tax ñu ne wa durr pour bañ wësnu bi daanu wa durr man zanna ku yaakaar ne ku yaakaar ne yux nii dana jëriñ aw yadru wala mu mën a lor kenn xayralaay ku dul yàlla sëñ tubaa nee na ah fa zaaka kii yaakaar ne am na ku mën a jëriñ ku dul yàlla mën a lor ku dul yàlla nee na kooku moom zoo këddin du teqale koog coono fii daare ni àdduna ak àllaaxira wa durin du teqale kook lor fii daare ni àdduna ak àllaaxira kii amul solo ngeen xam ko amul solo ku ko jàngaloon da nga ko jàng de ñaw ah mu mel ni am na beneen mbir bu ñu si mën a jàng si jamono ji yaa oustaz mooy li tubaab yi di wax message de motivation yaakaar naa day permettre nit ki mu am li ñuy wax euh, confiance en soi bu mu juumul noonu la ñu koy waxee mu mel ni li nit ñi di sonn léegi di wuti li ñuy wax ni moom la ñuy soxla ngir am motivation lii day wane ne rek Serigne Touba ak mag ñi jàngale nañ lépp ci message bi nga xamee ni yëkkati nga ko ci bayti bi nga xamee ni Serigne bi santaan na jamono ji ñu dellu si congaan hmm. dañ ne mag la la mu wóolu moo koy may yaram dañoo faalewul mag ñi mag ñi it faalewuñ ñu te bu ñu mag ñi faalewul yonent bi duñu faale te bu ñu yonent bi faalewul yàlla duñu faale lépp looy wëri seetal xul a'uuzu bi rabbil falaq yàlla ko waxal boppam moo ne boo jaaxlee te jàngal ñaar yi qul aouzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaqa wa min sharri xaasiqin isaa waqaba wa min sharri nafasaati fil uqadi wa min sharri xaasidin isaa hasada muy ñeent ñaanal ma ci lépp lu ma bind def naa ay ci moom ñaanal ma ma musal la ci ayam ñaanal ma la ma musal la ci ñuy bàyyi ba nit ñi nelaw ñuy dox lu bon ci nit ñi di leen pexeel di suuli gàllaaj ak sangu ñaan ma ma musal la ñaan ma ma musal la ci ñiy taf yi di takk nit ñi di liggéey nit ñi di jibar nit ñi pour lu ñu am bari ne ku fi nekk di liggéeyaat yor say oto yor sa étage fekk lala ko may ay tappale la yoroo jinne yoroo dara da ngay fen rekk tappale rek loolu lañ yor yàlla ñaan ma musal la ci ñooñu ñu ne ko kan mu ni ñaan nag ma musal ci aji añaan kañaan day dem di dem ba nga biir ko ngay dem liir ba di dem ngay biir kañaan nga di ko biir liir ba di dem ngay biir kañaan nga ba nga xëy wasin ko muy appaa paaw kañaan nga wasin paaw kañaan wa min sharri xaasidin isa xasada moo garaaw nit bu ko kañaan yëngalee mu bañ congaan bañ gu métti bañ muntaxaa bañ bëgg bàmba gu wér ba mënatu koo muñ mu dem Casamance dem Mali dem Guinée dem ci Mamani yàlla na ñaan moom musal la ci nag soo ma ko ñaanee nag may fexe ba lu waaj a def ma këpp leen ko ndax inna moom yëg kii doon waa kii du kay du yàllaa ko wax ñu ne ko lu tax mu ne qul a'uuzu bi rabbi naas maliki naas ilaahi naas bi rabbi naas maay seen borom maliki naas maay seen buur mm. illaahi naas maay seen yàlla mm. kon ñaan leen ma kon romb fi lii mag ñi bind ni ko congaan waxee mm. di seeti ay jëbarkat di seeti ay pexe mag ñi seen way ndare yi li ci nekk faj na lu ne defer na lu ne tukkal na àdduna bu ne waaw sëñ baam bi muy dem ci géej gi xam ne demul ak neenu neen ay pikiir mënoon na ko aar ah comprimé mënoon na ko aar masque yi mënoon na ko aar sel mënoon na ko aar tubaab ni mu bonee géej gi mu ko jaaral bato bi mu ko dugal ak fam nar a teer jeeg moom yàlla jiitu ko ci lépp bu sëñ ma ni tëll nga sujjul wallaahi ba mu yàgg ñu ni kii liñ bëggoon mënuñ ko am am na keneen kum àndal ko dul ñun mu ne ànduma kenn lu dul ka ñu waxoon ni alastu bi rabbikum ma ne balee yéen ngeen lànk mm-hmm. man maa nangul yàlla ngeen ngeen lànkal yàlla ñii ñëpp jaami yàlla lañ fu ngeen ma dugal ku ma fa fekk dana ma sujjóot ñu ne ko kon wàññikul mu ne déedéet tukk bu matul borom bi wàññi ko nu muy def kon doo yóbbu sëri cëri aca nañ leen dem rek ñu dem ba ne ko par force da ngay ñibbi par force laa wax lañ bëggoon client bi dafa diis ci ñun nañ dellu Sénégal sëñ Touba ne waxoon naa leen ne nag bu del seem na ngeen ko na ngeen ma santali yàlla mm-hmm. bés bi moo tax ma wax ni hmm. suñu yeggee ca màggal ga hmm. te yàlla dogal màggal gi hmm. illaa tuuba illaa tuuba illaa tuuba rek tuuba rek président na moytu diini ji bu baax ba ko ñi ko yore te tey ji lu mu am ci xalaat na leen ko jox ti déglu leen bu mu déglu mu ko waxi gaa yi gaa dañoo garaaw de te yaay responsable lu Sénégal ñoom duñu daara benn responsabilité Sénégal yoruñu ko yow yaa ko yore te am na fu réew mi doon yegg bu tàkkee yaay tiit ñele ca dugaloon dañuy daw ba pare naan xamoon nañ ko fekk xamuñu tus sàll góor góorlul demeel xel teeyal réew mi yëngu na mais boo àndee yàlla dara du xew